يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء Wah, eh eh eh eh eh, yang kerawur lu si sëyoon sëñ bi ma fondoo laa wax ñun si weeru koor la ñu nekk dama bëgg ngeen woor comme ñun ñëpp. sëñ bi soo lekk nga ñëw lekk soo ko mënul nga avancé. mooy yoon de. dafa làmp balaa nga dugg si biir bool ay baal leen ma de ma saa yi ñu ngi leen di xoolee nii. <laughs> ñaari nit laay gis su ma xoolee ci ñaar laay gis ñaar. saa yi dama xiif. lekk lan waaye yow da nga mag jëm xool ni a kaa lekk. ah kon dama toog nga pousse bi kanam ngay kàlla kàlla nii. dama bëgg sax eh, eh, yéen ñii sax li ngeen def nii fan ngeen ko teg. géej bi ngeen teg fii nag mënoon leen ko teg si digg bi. Ah, géej bi laaw géej bi teg leen ko fii fii nii. fi ñuy teg géej bi. waaw. waaw bi kaani bi teg leen kaan eh lii yéen da ngeen dof lii mënul eh, ngi nii. teg nañ ko fii ñëpp dagg si xoolal mi ngi nii acca waaw def nii bu dee bëgg nga ñoom carotte carotte baa ngi nii ba tey see yéen mënoo leen lekk waaw ah, wooroo c'est dama leen di woon yéen ngeen baax rek yéen nekk fii jël affaire yëpp teg fii teg fii waaw sëñ bi ni ngay lekkee yow bu leen ma sonal yow da ngeen baax rek waaw xool ko muy jël place da <coughs> ngeen baax lekk leen lekk leen mënoo leen lekk gaay bismillah bismillah bismillah sëñ da nga woor yow ya dom bu ma sonal way wax na la ne bismillah bismillah hmm. da allah akbar hmm. ya, rox seen rox daa bëri nag. sëñ bi. Hmm? xanaa wóorul. moom mun naa may jàmm may leen ma jàmm waaye. moo gën de. li ngeen bëgg lu yomb nag li ngeen yomb. sëñ bi da ngaa wóor de. may leen ma jàmm. Hmm, hmm, kenn saf na. tey nga def ndax

limba limbaji amula ninyelula ta oy korgirek korgirek igway muñal bố mà mẹ lo vậy mà phong đang may nắn lại đem nó nó tìm ngân hàng mà 11 giờ bye bye vậy ay waay bu wax loolu mu ñëw yow tamit kilifa nga kilifa du saali mm. uhuh. tey moom koor gi jàpp na <laughs> <laughs> ay nijaay yow lii oh! lu muy def nii xanaa dafa feebar. te papa de dara daru ko. koor kese la ragal moo tax muy def nii. koor kese la ragal moo tax muy def nii mel ni xale bu ndaw. xanaa soo gisee sa doom toog sax nga war a mën a am kees si moom tuuti. mooy amul xale amul mag wëy. Eh, papo mo na. Ay, gusto ko sa mga boy. Bumasonan, bumasonan. Umelo, ay. Ah. Mm. Munya. Munya lang. Munya si Mundara. Bakal, bakaloy, bakal, bakaloy, Wah! Saan bulu buluwi woy ni munan bakaloy, bakal? Amin jay, amin jay kay. Saan pa pudong bakal daw woy? Bakal ilan? Bakal ilan. Ya, ya, sih, jangan. Sida, anak jangan dani. Saan pa pudong jangan xasida damay jàng kay man de dégguma xasida mbaxal looy mbaxal laa fi dégg mbaxal looy mbaxal ya may tuumaal le papa xanaa wooro tey woo man ma woor est-ce que tey xëdd tey xëdduma xëddoo xëdduma kay ah. waaw xëddoo loolu xanaa danga ndërëx ndërëxi lan wa euh, mais na kuy ah. gëlis na waay gëlis la yee gëlis léegi yi dañoo seetaan a nekk soo wooree waay da ngay xiif bay bëgg a dee sax pour man de mooy taxaw ci seen foofu rek waa muy xam muy daw muy rip rip ni mbaaw sam sa gis nga wóoru tey sam papa di daa mel ni wóoru ah jaaxal na way waaw papa lan moo la dal naa ko dëgg mooy transformé wu de xëdd ak dee lii du xëdd lii xëdd la xëdd la ma foole sànq nga ne xëdd ah damaa juum xëdd naa kay xëdd naa xëdd naa sama papa yow sa wóor bii wóoru dara mooy tax nga foofu de mbate ko ami jaare papa yow est-ce que lii xëdd la kase de lii loolu di xëdd xëdd bi la loolu di xëdd de